naa bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku ki téléspectateurs yi nuyooti naa leen ziarati leen maa ngi jàmm gën nag li ñu fi indi tey ku ne xam na ne le premier out di dimanche Pape Abdou Fall borom Paf production moo tëgg combat bu rëy war a dox ci Papa Sow doomu Parcelles Assainies mu war a jàkkaarloo kan Siteu tarkindaa bi doomu jàmm gën fii ma taxaw nag maa ngi ci koñu Siteu ay doomu jàmm gën a ma wër maa ngi nuyu waa Diamaguène yëpp Sicap Mbao waaye maa ngi nuyu itam waa Parcelles ak Grand Médine ak ay Grand Yoff quartier yooyu yëpp ñii nag defe naa ne moom ku xam Siteu xam leen ku leen xamit xam Siteu ah tur bi nan la nga ne. Serif laa daa mel ni pare ngeen de. ba xam pare nañ ñun dañoo noppi pare wuñ de dañoo noppi. Ah, waaw noonu la fa demee xamal tax dañoo xam fu jëm. avant tout sax onze billah bisimilah ina wandi yàlla jërëjëf ngi dégg mais Papa Sow dama bëgg mun a tekk mu war a def tekk xam nga tax mu war a def tekk xale bi dafa xam yoonam xam ma tax ma wax la lool Siteu du moroomu Papa Sow te Papa dafa war sant yàlla na xam nga tax mu war a sant yàlla bu tëbëg seereen yàlla ak Siteu la moo ko may xaalis yow nag bu Papa saw la doon langaamu la ma la xam naa ko nekk naa comme Papa Sow deux ans Papa Sow yor ne Siteu tax mu tëbëski yow itam Papa nekk naa fa deux ans la doon langaamu xaru tëbëg si mais ren situation yi nu mu demee ma ne Siteu mënoo naa mën na ko jëlal combat bi nga may ko xaalis jëm ko jàppale après Papa Sow combat bi bu paree day dem tukki moom si ñoom nekk Modou Modou oto mbalit Europe bi moo ngay xaar da ci war yow yow yow yow waxoo waxu làmb de man man damaa foogoon man damaa foogoon dama foogoon nag may wax ci waxu làmb mais li ngay wax ni tamit est-ce la. non dama lay wax ci waxu làmb mais dama lay xamal. li nga waxee nii. dama lay wax ci waxu làmb mais dama lay xamal leen man yàlla mi dama ko xam. yoo xam mooy yalmin xam nga yalmin mais est ce que xam nga papa sow mooy yalmin xaw ma luy yalmin yalmin de ci séréer mag gi yalmin mooy buur am bu ñuy wax làmb sira tax na xama tax ki toj mbuur toj caajaay Fatick Sandiara Tataguine Keskaay Lougaloo Ñongoloo xam nga lan lañ koy wooyee l'homme de tous les événements digne de votre génération il a fait tout votre carrière votre nar bi naan ko yaanama takar gi dan jamila nama na nakata bayruta ma xasa eh. espagnol bi xam nga lan la koy wax i dodora na bida poki na chrétien para nikota ayamo e boilusan fii sida fi nekk yow sida da laa dimbali na xamal tax sañse bii daa ko def mais sida tax déet man sama sañc déet man man sita dimbali wu ma de sita num ma dimbale daa tax ngay sañse ta num na gën nga ñëw VIP jàmm gën laa ñëw waaye bu li nekk jàmm gën laa ñëw ne waaye man damaa yàgg sañse de combat bi tiituma ci combat sida bii nii tiituma ci man sama sañse bawol laa ko jëlee moo tax ma bawol ba nga ko jëlee nag ñun bawol ñoo ko bokk man ak moo tax ma ne Siteu ngay sañse ndax xam moo la waxee loo xam lan moo ko waral tey bu nekkoon ak Siteu doo sañse Siteu moo siiw yaa ngi dégg nga ñëw di ko entouré yow ñun ay star ñoo lay fay yow ñoo lay dimbali yow ndax xam nga boo boo wanewul image bu baax soo demee sa patron da lay dàq moo tax yow Siteu da fay ba pare man ma dooli la waaye yow it fii waaye li a wax man ba xam nga loolu man saa micro ba ma ko déggul man sama jëmm damay wax na xamal tax xama fa laa mu neex di wax waaye wax ñu seetaan laa jafe xama fa laa may na ma Suisse Gueule waaye bu ba fit waay copain may ma buuba mais buuba est-ce ne ku la yàgg xam laa nag non rawal ca Fass Mbao lu nga bëgg xeex <laughs> tànk loolu di turu booba fit wi wax waay billaay la nee woon Fass kenn du ko arrêté tuddee ma ko woon sama bopp de fit na la xam loolu maa la xam ca diggante Fass Mbao ah koñu garga ah, ah tali karo billaay yal na la yàlla defal jàmm yow billaahi mais mbëri mooy loolu de ku jaakaar ne buuba mbuqat la wala kii ak nii moo ngi entraînement di ànd ak gars yi boo dul mbuqate tam gars yi nag gisatuñ la lekk avance de dëgg la mais tamit lañ may fay du ma ko xalaatuma ko jël man da may fay ma bëri génna Assane ma Assane Ndiaye. bu ba Assane Ndiaye bool production da laa wóor na Seydina Mohamed nga yow tamit Assane Ndiaye maa ngi koy nuyu en passage mais moom ku baax la tamit mais ñoom xam nañ la war ci buuba quoi tamit. bu ñu wax la bëggoon a booleel. ki combat ki moo yàq woon rek général Malika bi mu bëggoon ma ko jox. mu bëgg la général Malick. waaw ah, yow attan nga général Malick. waay. mos na ñoo bëri. waay bàyyi ma mos ñëw bëri sax mais ma noppi rek nañ noppi rek hey mooy loolu. boo ko doon da ko mos a daan. soxna eh, xool ma naan la gaañ daal en tout cas daal mooy loolu mais dama la man ponkali laa gën a bëgg ñu tuuti ñi wër na Seydina Mohamed barke alxuraan bul gis nii bu mooy lool de. man kay say combat seetaan naa ko dangay ngay raag ba dugg boîte vocale. waaw raag boobu nag laay bàyyi léegi damay ñëw bëre. mais le premier août. oh lu garaawee xew wër na Seydina Mohamed wër na Seydina Mohamed waaw kii nga jàkkaarloog nii. kenn daa nga jàkkaarloog nii. barke maam Serap Fall day dugg indi ndam incha allah. ndax xol bi moo rafet ko waaw wër na Seydina Mohamed xol bee rafet. Papa Sow ngeen di bëreel de. xam na bu baax ma xam ko. foo xamee Papa Sow ak loo xam ci moom. Papa Sow yàgg nañoo dem di entraînement biir Fass yaa ngi dégg moom xam na ma bu baax ma xam ko bu baax. xanaa mooy bi nga nekkee ci mbay gay. bañ ba léegi maa ngi ci mbay gay. Ah. ba léegi nii maa ngi ci mbay gay wóor na Seydina Mohamed. mais Papa miin nga ko. waaye Papa Sow nee ko buuba rek boo ko gisatee nee ko buuba rek avant combat bi nga xool xam nañ bu baax wóor na rasulullahi sato nañ bëre Papa Sow incha allah Siteu daan man maa la ko wax Papa Sow wóor na xam naa lu bu baax nice de <laughs> mais booy jaamu gën bi da lay daan ndax moom laa yéene victoire barki Mame Serap Fall moom laa ko yéene. mais da koy daan ci nan ci bëre wala ci xeex. ci bëre Papa Sow cappi cappi la am jël tànk man la suma waay te Siteu xam nga ne ku mën a tànk la seetaan naa ko kontaan xam nga Papa Sow dafa juum maa ngi lay wax lu garaaw nag. temps yii yëpp ñu doon andi entraînement mais wóor na Seydina Mohamed kii di Siteu kii di Mama kii di euh, booy yi ak yeneen booy yi barki alxuraan li ñu entraînement wut gisuma mbër bu koy entraînement barki Seydina Mohamed maa la wax loolu. yow waa parcelles yi gisoo la ñuy def ànd ak Papa Sow ñoom Modou Lo ñoom Franc. nga naan ma ay Franc ñan ñooy naan it. noonu waaye yow ay mbaam xuux yooyu noonu. waaye buuba nag sa tooñ yi nag doole de. kenn amul doole ku dul suñu borom. non doole yi bëre laa wax. doole yi bëre. waaw yow yow xanaa xamoo Siteu yow li ne euh, doole intérieur bu nekk ci moom gisoo ko boo jàppante mu ngay xam barke alxuraan wër na Seydina Mohamed yàlla na sax ma naan ay mbaam déedéet du ma tooñ mais tooñ baaxul mais gaayen ëppoo leen si la doole ci dara wër na Seydina Mohamed duy nuyu nag sama waa écrit nag waaw waaw mesure barrière respecté ngeen ko de gaa yaa ngi joxe ay masque de luy mesure barrière sax yow maanaam masque yee ñuy joxe ci eh bu ñu tooñ corona amu fi bu ñu tooñ ko eh, eh, yow itam c'est pas waaw wayu ma bu ñu tooñ eh, ban ko waaw yaa ngi joxe ay masque waaye bugguma waaye yow bu ñu tooñ nag eh gaayen nguur gi billaahi dimbaluñu nga bàyyi waxu corona bii nii ñu nekk ci leneen ñun làmb ji mënoon la ñu ko yàqal barke alxuraan bàyyi la làmb ji mu daw ngeen di def seen yii nii. ba tey ñoom mooy tur moo gën a wër feebar am na fi de. mu ne wër na rasulullaahi feebar amu fi barke alxuraan karim feebar amu fi maa ko wax bi maa wax man buuba feebar amu fi. kookooy buuba fit ndaysaan gis nga gaa yaa ngi joxe li nga xam ne moom mooy masque yi pour gaa yi respecter mesure yi wax nañ dëgg noonu la war a demee borom masque borom masque ziar na. jaajëf lii maanaam eh, eh, tuuti rek tuuti rek s'il vous plaît dugg na ci biir parce que lii tamit am na solo trop ah ñu ngi joxe ay masque pour gars yi takk ay masque sa waay mu ne ñu sori daam mel ci côté masque yi mesure barrière jël ngeen ko ah. waaw comme ni ñu ko waxee rek on est des citoyens nekk ci dëkk bi dëkk bi am lu fi xew ñu nekk ci période de pandémie kon dañuy jël suñu matuwaayam comme ni ko état waxee comme ni ñu ko médecins yi digalee noonu lañ koy defee jël suñuy mesure bare takk ay masque laal ay gel fexe respecter distanciation sociale bi waaw. kon moo la tax ngeen di joxe ay masque di maanaam ku nekk ngeen jox ko masque mu takk. xam nga Siteu Siteu c'est un ambassadeur Siteu c'est un phénomène Siteu c'est un porteur de voix te dafa war a joxe exemple moo tax tey jii koo fi gis rek tey dafa takk masque waaw ñuy ñaan bii nga xam ne moo gën a si réew mi muy troisième vague yàlla na fi dakk ba faw ku ci nekk waat ci tey combat bi ñu jëm ni yàlla na ci egg ak jàmm suñu borom mooy ci ndam ci barke Touba waaw. ci yow. man li ma lu garaaw mooy Siteu maama Lamine Ngonguy génn mais Siteu kagul la sol de Siteu kagul la seen daa mel ni de Siteu kagul la sol de loolu de xanaa mooy respecté mesure barrière yi en cent pour cent kagul bu ruus kagul man de kagul laa seet c'est à laa seen de kagul laa seen de Siteu kagul la sol de maa ngi seen Abdou Seck noonu Siteu takkagul la sol teg benn cap bu sa kaw kagul ga kagul bu rouge rouge noir sekk la ay seen noonu laa ilaha illallah tarkindaa jàmm gën baa ngoonguy génn war a dem ci open press am la sol Balde Siteu kagul la sol mag jàngongu taxaw ak moom ak Abu Ndiaase kooku magam la ñoo bokk ndey ak baay mooy ya Abu Ñaase ngoongu taxaw c'est-à-dire kagul la sol tey lii de mooy respecté naa mesure barrière yi à 100 pour cent xam nga yi masque la ñuy wax moom mu sol kagul far mbir ma jeex xaw ma nag kagul gi kul masque la xaw ma kagul gi pour lan la lan la cey Siteu mu ngoonguy génn kër gi de ngongu yéeg ci oto bi de oto ba ngonguy départ Abou Niassène ci biir oto bi gaa yaa ngi noon topp ci ginnaaw oto bi Siteu départ na jëm fa muy defee open press am xool nga mbooloo mi ko topp cey Siteu popularité am foo ko takk ci làmb weesu na ko daa bëri mbooloo loolu la yàlla dogal gis nga mbooloo mi ni ñu génn a ñu dem kon mbokk yi gis ngeen ka la xew kër Siteu oto bii moo indi Siteu ci fi nga xam ne moom lay defee open press am Baldé nga xool mbooloo mi xoolal lii comme arène comme arène ba xool mi mbooloo xam nga lii tamit maanaam yombul yàlla mooy maye yàllaay jël doomu aadama def ko ci xolu ay nit Siteu wax dëgg yàlla waa banlieue bee ko bëgg. parce que boo xoolee lii hélas xam nga lii lii lu doye doy waar la xoolal lii ngay xool gis nga ñi xool nga mbooloo mi gis nga dangay ngay xool ba fa bët yem rek mu mel ni kon daal le premier août dimanche ah Pape Abdou Fall andi nga bés andi nga combat andi nga lu doy waar tarkindaa yii ak waa parcelle arène nationale ay balde balde bés a ngi noonu balde di nga gis tey lu doy waar loo mas ta gis balde xoolal xoolal mbooloo mi yaa ngi gis mbooloo mi Balde yaa ngi gis gaay xool kaw école bi xoolal ma kaw école bi Balde fu ne la gaay yi toog Balde kii yaakaar naa Siteu ci MMA bi defe naa moo ko ci dugal wala boog bokk na si ñi ci ànd ak moom maa ngi lay nuyu nga fàttali ñi lay seetaan sa tur. asalaamaaleykum ah, ma maa ngi tudd Abdourahmane mais nu ngi may woowee Legacy. Ah, maa ngi leen di ziar Sénégal maa ngi leen di ziar yéen ñëpp ah, ñi fi nekk kontaan nañ si ñëw bi ñu ngi préparé pour Papa Sow incha allah te yàlla si sët am ndam incha allah tamit. léegi si yéen ngi préparé ngir Papa Sow mbooloo mi nga xool nii topp si te nii lii nu maanaam lii noo koy dundee. lii yàlla moo ko def yàlla moo ko def ndax ku nekk yàlla daf la may dara xam nga ku nekk te sët taalibe la taalibe la mooy dafa wàccee suuf boppam si suuf. xaalis defaru ko xaalis yàqalu ko nu mu mel noonu la mel ak xol bu baax yaa ngi comprendre soo nit du melee noonu nu ñi dañ lay bëgg ba pare nit ñi dañuy gis loolu si yow. soo legacy combat bu metti ngeen jëm seen diggante ak Papa Sow combat boo xam ne Papa Sow bi muy mujj a daa amoon defet Siteu bi muy mujj a bëre daa amoon defet kon defe naa ku daan dina metti ci yow est-ce que pare ngeen fi mu nekk nii. waaw doo gisee Siteu boobu noonu defet boobu noonu ak fu mu toll lu bëri changé na. combat technique la nga dem nga jàngaay ay technique nga nga gën yokk sa bopp xam nga nga gën a defar sa bopp yokk sa bopp te instant yi ñun fu ñu toll defar na defar na ba pare rari na kon ni nga ko waxee ah, lekke si forom Gambia non man am naa forom Gambia Sénégal laa juddoo Yoff laa yéen waaw waaw moom laa juddoo ok mais looy wax sa mbokk anglais yi rawatina américain yi parce que yaakaar naa États-Unis ngay dund yow non maa ngi dund Afrique États-Unis mais Afrique laa nekk mais fu mu nekk nii rek incha allah na si ñaan yàlla suñu borom jàpp si dimaas bi nii incha allah Papa Sow mu tëdd. incha allah jërëjëf waay merci. journaliste li tax ma leen di jégalu mooy yéene bu ñu am mooy parce que micro bi daan na ci biir de sama loxo man mënta génn di sant suñu sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan mais ñun lu ñuy wax man li may wax du ma fi nekk di poser question du ma fi nekk di wax Papa Sow man si lenn rek laay wax mooy li nga xamante ne tey mooy jeunesse ngeen bàyyi xel bàyyi xel bi nag mooy ku ne xam na ne mbas bi moo ngi mais ñun amuñu lu dul suñu kàttan amuñu lu dul suñu xel dañuy daw chaque jour di uti di utali lu ñu juwal loo xamante dañ koy yóbbu pour suñu yaay yi dañuy dem di uti loo xamante ne pour suñu njaboot pour suñu dëggandoor yi mais li nga xamante ne mooy suñu liggéey nañu si bàyyi xel bu baax muy état bi man état laay waxal maa ngi leen di ñaan yàlla di leen wax ne si lépp loo leen ñu sensibiliser rek ñu ngi ci. mais di leen ñaanaat di leen ñaanaat di leen wax ne ñun ñoo ngi ci banlieue bi ñun ñoo ngi ci banlieue bi banlieue bi lañ nekk ñii seen loxo jot na ñii seen loxo jotul te li ñuy jund ku leen fekkul si loolu mënoo ko xam kon ma leen di ñaan yàlla ñun lii mooy suñu sport mi làmb te làmb mu yàqu mooy ndaw ñu bari dinañ échec làmb mu yàqu mooy ay jeunes yu bari dinañ échec kon ndaw ñi làmb lañ bëgg nañ leen jàppale mbëri mag yi nañ xool li nga xamante ne mooy yóbbu làmb ci kanam ñu koy def di kay wax di koy jëf ñu xool journaliste fi nekk ñu xool li nga xamante ne moo positif ñu koy wax di koy def ba làmb jëm ci kanam ndax parce que ñun amuñu lu dul làmb xoolal ñi ma topp ñii defaluma leen dara ñii gënuma leen yaay gënuma leen papa ñu bàyyi seen lépp topp ma kon ñii nii dañoo am benn sas boo xamante ne dama leen ko bëgg a fay di ñaan yàlla yàlla may ma ndam xooyaaw foole séeréer wi nu anaan leyaaw séeréer mi xooyam mi xooyaa nu anaan leyaaw séeréer di woo autorité yi fi nekk si dëkk bi ñëpp di leen wax ne nañu jàppale suñu kombaa bii ñu jëm waaw gisaguñu kenn sama xarit Babacar Xuma rek laa gis mu jàppale ma parce que xëy na am na ñoo xamante ne xëy na xëy na li may wax mu na leen arrangé mun na leen bañ a arrangé waaw mais man li ma leen di woo mooy sama làmb ji laay wax te man li may woote mooy si jàmm laay woote ci jàmm laay woote si jàmm laay woote waaw di sant sama sëriñ sëñ Sidi Mbacke alxuraan bu baax di sand Ndofène di sant maire fi nekk yëpp di woo autorité yi na mu ñëpp jàppale di woo Fat Bindu Ndiaye gisaguñ ko mais ñoo ngi koy xaar di woo Pam Mayel koy xaar papa yalda bi gaañu maa ngi koy jaale di jaale sama doomu nday Fodé combat bi Fodé may combat bi Fodé may di di jaale sama bàjjen Fatou Hawa maa ngi koy jaale yaayam waaw ñu gis ne Siteu tey da ngaa am dese waaye teewul da def open press waaw tey dama am naqar sama bàjjen moo gaañ mais teewul dama dama dama dama dama dama engagé wu kon il faut ma def ko parce que nit ñi fu nekk la ñuy jógee di jaale ki nga xamante ne mooy Pam Mayel Pam Mayel maa ngi koy jaale waajuram parce que papa la man di rëy ci man mais maa ngi sant ñi ma jàppale di yëgal seen doole di yëgal seen alal di ma koy jox ku mel ni Papa Dan di sant waa Gàmbi nag waaw di sant waa Jonwaar di sant waa Diamaguène samay xarit tarkindaa yi di wax ne bi open presse bi pour mu mun a yegg pour mu mun a yegg open presse bi na ñëpp anière ñu baaxu ñu baaxu baaxu bi nga xamante ne moom lañ génnee bu ñëpp anièreul man du ma damay damay damay damay anière damay ñibbi bu ñëpp anière ma baaxu baaxu bi nga xamante ne moom laa pare pour indi waaw di ñaan yàlla na ñëpp génn Papa Laaji Gueye maa ngi koy siyaar waalo waalo yi ñoo moom lamb ji waalo waalo yi ñoo moom lamb ji waalo waalo maa ngi leen di baalu ak journaliste maa ngi leen di sant journaliste wallaay aw ma seen fay waaw séeri maa ngi koy maa ngi koy bëggee liggéey foog nga wax naka teg mais boo leen yokkoo doon kon mbokk nuy waat nañ leen bëgg waat leen tey nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy jàmm gi bi ngeen mbooloo mi ngeen fi gis pour te def open press sax c'est tout un problème parce que li ko waral mooy mbooloo mi bari naa ne nu muy dundee ak ay nitam wala nu mu mel ak waa koñam wala ay dëkkandoom moo tax bu jógee ñëpp jóg loolu moo waral nga gis mbooloo mi open presse bi boo xoolee sax maanaam pour ngeen image yu baax sax day jafe parce que loolu mbooloo moo ko am ay nit yu bëree bëree bëree bëree bëri di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla bàyyi ba dimanche le premier góor mu daal la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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk